c'est bon euh, ñu euh, attaqué troisième point mu nekk troisième mandat bi nga xam ne euh, ñu farandoo ak Macky mu nekk des voies autorisées mu mel ni ku mel ni euh, Boun Abdallah Dionne ak kii di Mbaye Ndiaye yëkkati ko di xam ne ni kii di président Macky Sall constitutionnellement parlant mun na am troisième mandat ban lecture nga am si yooyu les sorties waaw man moom ce qui est bizarre mooy chaque fois tu commences par moi. ah mais. <laughs> peut-être droit de nas bi la euh, quoi. Euh, amoo chance. <laughs> sa position moo baaxul souvent yow aussi mën nga mélanger. Euh, sa position loolu xam nga ko journaliste on ne change mais ba amul problème mais on d'accord on y plein il faut ñu xam lenn gis nga man ñu ma xam dama nekk koo xam ne dama gëm ne nit ñi. il faut ñu bàyyi la ñuy wax seen xalaat xam nga tout à l'heure da nga ne troisième mandat du mu la du mu la corriger mm. mais pour des raisons de de commodité mm. troisième candidature la wax mandat moom beneen mbir la mm. peuple bi ñooy jóg benn dimanche premier tour wala deuxième tour ne lañ jàpp fii ak cinq ans yow lañ dénk suñuy mbir kon mandat waxaguñ ko troisième candidature éventualité troisième candidature Boun Abdallah Dionne xam nga lan la wax daf ne histoire u Macky Sall ak Sénégal dina dem ba 2035 loolu loolu la waxoon euh, Guédiawaye mais lu mu waxoon euh, E-Media lu mu waxoon yow laa koy laaj ah non bu Guédiawaye bi ah, mu waxoon à E-Media non non lu mu waxoon à E-Media ko bi Mbaye Ndiaye wax non non non non lu mu ne carrément que le président Macky Sall constitutionnel euh, par parlant il a le droit de briguer un troisième mandat très loolu la waxoon est xam nga loolu noonu mm-hmm. bi ñoo ko njëkk a wax non non non je veux dire pourquoi non maa ngi ñëw jàpp ban man boo ma question dañ may bàyyi ma répondre à ma façon. waaye ouais, man du ma ñëw répondre comme ça brutalement je suis un apprenti communicant je sais quoi faire pour te répondre. <laughs> Euh, lu ñuy wax mooy euh, Boun Abdallah Dionne lu mu wax à Guédiawaye. Mhm. histoire du président Macky Sall ak euh, Sénégal dina dem ba deux mille trente cinq c' est absolument vrai n'oubliez pas que le document de référence des politiques économiques et sociales du Sénégal c' est le plan Sénégal émergent. qui part jusqu'en 2035 donc l'empreinte de Macky Sall keneen ku fi ñëwaat na nekk sax dadi mi yal na ko yàlla def président Macky Sall turam dafi des pourquoi parce que moom moo réfléchir loolu moom moo mettre sur pied ce plan là te dina dem ba 2035 incha allahu rek mhm. analyse boobu laa ci def maintenant yow nag avec say sii. léegi waaw pardon maa ngi ñëw dadi ak ay maa ngi ñëw euh, analyse xam nga def na constitutionnellement. Mm. man je ne suis pas un juriste bay nekk sax constitutionnaliste. Mm. mais dama ne la les constitutionnalistes. Mm. ak l'opposition avant sax ñun ñu di si wax ñoom ñoo ko njëkk a wax mm. bu ngeen génnee archive bu nekk jëli leen mm. ku ci mel ni Bamba Fall ku ci mel ni Barthélémy Diaz il a toujours dit. mais xam nga moo jaaxal xale non non dañoo je te laisse continuer xam nga lan moo jaaxal sénégalais yi. réponse bu ambigu nga xam ne euh, président Macky Sall def na ko te euh, yeneen sortie yi mu defoon yëpp dafa waxoon clairement moom pare na ak euh, présidence bu dootu defaat troisième mandat loolu moo tax sénégalais yi ak di di di di de des questions ak tamit ñu gis ne wàllum troisième mandat bi dàq neen si des proches de Macky Sall pour citer Moustapha Diakhaté mhm. mu mel ni comme président Macky Sall ñu wax troisième mandat bi mun na koo am moom da leen di félicité tàccu leen bàyyi leen ñu toog ñu wax ne mënuñ koo am moom mu dàq leen et les faits sont là bul ma wax ne man maay samay si man maay samay kii finalement tu me poses plusieurs questions waaw allez-y <laughs> réponds parce que on y parce que aussi mën nañoo répondre mais boo ma posé benn question bàyyi ma évacuer ko parce que à force nga <laughs> nga dóor ma yi am mi tamit damay am problème d'accord alors euh, lu Mbaye Ndiaye wax mhm. ak lu Boun am naa sama idée par rapport a la situation politique am naa sama idée par rapport à cette question dans notre parti li ma ci xam mooy Boun Abdallah Dionne lu mu wax géejawaay compréhension bi ma ci am mu mun na ci am beneen compréhension bu ma ci am mooy ku mun di ñëw histoire président Macky ak Sénégal moom dina dem ba 2035 loolu du dañ à mm. travers le PS e. mm. léegi dama ne la est-ce que dina am troisième mun na nekk am troisième candidature est yoon may na ko ou pas dama ne constitutionnaliste yi ku ci mel ni professeur Babacar Gueye mm. kenn l'a dit Barthélémy Diaz il l'a dit te doole ma Barthélemy Diaz il négocie avec Macky Sall kon loolu loolu la yoon wax maintenant man du ma ko analyser sous l'angle constitutionnel est-ce que président may na ko wala may ko xam nga lu ma jàpp mooy ñun ci démocratie lañ nekk fal nañ benn président président bi un an sax motagul un an parce que nee nga tout à l'heure dinañ def benn bilan mais un an sax motagul pourquoi parce que mu ngi prêter le serment le avril te le président devient officiellement président de la république après prestation de serment kon ba tey mën nañu wax ne président Macky Sall defagul un an benn installé fi benn débat boo xam ne dañ na attends est-ce que dina ko nekk est du ko nekk te loolu gis nga dans tout combat. mais loolu yéen waa dama la dama ko. non non non a koy seq. ñaari nit a koy seq xam nga lan lañ ci wax président Macky Sall li mu ci wax c'est les vidéos sont là te man jàpp naa ne sa parole. les vidéos sont là effectivement les vidéos sont là léegi dama na la. commentaire boo ci am. Mhm. yow mën nga ko am kii am na ko mais xam nga lu ma gëm l'homme que j'ai connu ki nga xam ne moom moo tax ma nekk jeune. Mhm. dugg ci politique nekk PDS. waa PDS bëgg ko toroxal ma génn PDS ànd ak moom xam ko ci dëgg. xam ko ci jàmbaar xam ko ci respect parole donnée. Mhm. ak lu mu wax. man gëm naa ne le ma venu. le président Macky Sall li mu wax. dina ko jëfe ba mu mot sëkk maintenant hmm. président bu fekkee ne sénégalais yi wala yéen ñi hmm. bu ngeen yaakaar ne yéen a koy imposer benn agenda boo xam ne dañ naan ko moment bi jot na waxal ci lii moment bi jotul noppal ci bu vous trompez non non il a son agenda ko benn agenda dafa mel ni waaye parti mi ñoo koy imposer agenda parce que fu mu toll ni ku mel ni Mbaye Ndiaye euh, dafa mel ni il est en train de forcer euh, le président Macky Sall Euh, pour forcé, faire un troisième mandat le si parce que fois fu mu moom loolu lay wax euh, Francky ñu wax ci troisième mandat bu président Macky Sall nga xam ne fu mu toll nii euh, ay ténor yu ñu ngi ko teg ci table bi ñu gis ne carrément ku mel ni Moustapha Diakhaté wax na ci troisième mandat bu président Macky Sall gis ne na carrément lu teg ci ndordom non seulement dañ ko teg ay ndongo tànkam ñu oote ko commission disciplinaire dàq ko ci parti bi muy mel ni comme fu mu toll nii président Macky dafa bëgg a wax waxet effectivement je pense que wax waxeet bi c'est pas la première fois Macky Sall di ko def. Euh, def na ko ba mu ne mandat bi cinq ans la. Mhm. mu dem ba mu neex ko muy mu daal ci yokkaat deux ans. wax waxeet bi fu mu jógee l'origine du wax waxeet. xam nga xam nga li ko wax xam nga xam nga booy wax man dama lay déglu li ngay def nii mën mën naa ko. li ngay def nii mën naa ko danga nga may déglu ma wax. Eh, tout le monde dama la bàyyi tout le monde devait de wax waxeet sauf lui. ta voix n'est pas recommandée pour nga wax waxu wax waxeet. Eh, su waxee ba pare <laughs> yow may ma wax. wax nga ba pare mais <laughs> allez y wax nga ba pare allez wax waxee je pense que. fu mu jógee Macky Sall def na ko bu yàgg. ci kan la ko jëlee yàgg na ko def def na ko te te defati na ko. Mm. Macky Sall nee na mandaam cinq ans la mu mu yokk ko sept ans. Mm. un Macky Sall nee na jamais au plus jamais ku bokk dans sa famille. du ma ko nommé du ko nommé. il l'a fait. Mm-hmm. la liste est exhaustive. Mm-hmm. fa laa mm-hmm. pour vous dire que parce que moo ko wax dégg naa la cinq sa intervention nit kuy sàmm sa kàddu nga wax. waaw waaw nee nga Macky Sall dafay kuy sàmm koo xam ne kàddoom da koy sàmm. Macky Sall je suis désolé. du ma wax président de la République président de l'APR. Mm. président de l'APR koo xam ne kàddoom da koy Mm-hmm. donc kàddam amatul valeur juridique bu nekkoon droit loolu la ñuy wax sa parole n'a plus aucune valeur juridique en plus yaa ngi naan <laughs> kii day réciter ay cours xanaa non il n'y a pas de cours ici tu vois que je je récite des cours tant pis donc li gën a am solo en plus nee na professeur bu mel ni Babacar Diop nee na yow itam si biir wax Babacar Diop de euh, di mooy si biir wax dégg naa la nga ne troisième mandat bi yoon da ko nangu moom daal dégg nga wax su ma ñoom ñoo ko wax. Mm-hmm. même l'opposition la. Mm-hmm. ce qui est faux et archi faux. ce qui est faux nekk xam lu tax parce que l'article 27 dafa leer nañu dafa leer kenn mënul def ñaari mandat consécutif kan moo def kan moo ñu ko def un mandat c'est Macky mu bëgg a amaat beneen mandat te li gën a li gën a leer si article boobu mooy maanaam li nga xam ne kii la moom moom moom la ñu soxla woon lañ bëggoon a bind si article bi ak li leer li ñuy wooye l'esprit et la dafa leer nañu esprit article bi c'était pour ñu fexe ba kenn dootul am plus de deux mandats la ñu bind mooy effectivement kenn mënul am plus de deux mandats et mieux et mieux l'article cent trois de la constitution ñëw daal di koy tëj tëj ko ne mmh. yii yii yii maanaam euh, Sénégal c'est un la boo xam ne mode élection du président mmh. le mandat donc dañ ko insérer si si ay clause yoo xam ne mm-hmm. ay clause d'intangibilité lañ koy wooye mm-hmm. maanaam kenn mënatu koo laal kon moom bu taxawee ku taxaw ku ne ak moom ku mënti doon ne Macky Sall mën na am troisième mandat yi yoon may na ko ko non non et puis li gën a pire mooy il y va de si boo xam quoi mm-hmm. politiquement c'est suicidaire. D'accord. Politiquement c'est suicidaire. Au-delà au-delà de la justice au la même sax politique ak yooyu noonu noonu mais man euh, damay wax euh, si par rapport ak l'éthique ak tamit combat yu mu euh, mëne woon ak ñenn pour compatriotes yu féetoo si opposition bi fu mu toll ni mën naa ko wax ak ay ndaw sax yoo xam ne dañoo dee woon au fond ngir mën a. à cause de Ablaye Wade. ngir mën a préciser ça. foofu foofu foofu waaye li si ma teel xam nga xam nga en 2012 dimbali ma rek ngir yàlla maa ne ko ñaan dama ko doon éclairé nee na ñi fi dee woon dama bëgg nga xam ne en 2012 benn nit kese moo dee ci manifestation c'est faux benn nit 14 benn moo dee ci manifestation ñeneen ñi dee ñëpp maanaam li li nga xam ne moo tax ñu dee yàlla na leen yàlla yàlla suuf seen seen kaw du du manifestation politique purement moo leen rey. d'accord que ce je peux continuer ma question. une seule personne mooy étudiant bi nekkoon euh, bi nekkoon. Mamadou Diop Mamadou Diop seulement. c'est faux tu n'as rien compris. yéen nag yéen a jël moo yi fi amoon époque yooyu yëpp. bëggoon ne c'était à cause de la crise. tu n'as rien compris loolu duñ ko nangu ah. tu n'as je peux continuer ma question. allez-y allez-y déontologie ak euh, même sax morale ak yooyu nga xam ne ñu euh, quatorze personnes euh, gaañu neen gannaaw bu ñu bëggee rétablir fii démocratie ak gor ca wax ci confirme alors non non non ah, ah, y'a quatorze personnes y'a quatorze c'est ça la vérité waaye li personnes kii laissez-moi terminer ma question après ngeen débat parce que du ma nangu aussi ñuy waxal PDS loo xam ne amul je me d'accord c'est bon benn nit moo gaañu muy Mamadou Diop bon mais ci processus électoral bi la ñu gaañu. processus c'est ça d'accord c'est ça. peut jeune. peut-être il était jeune peut-être nekkul woon sax ci schéma yi. ki xamul woon xew. d'accord en en Franky 2012 foo newoon en 2012 j'étais en deuxième année. waaw foo newoon mais est-ce que est-ce que foo newoon. en deuxième année est-ce que boobu yaa ngi doon ranger chaise sax boobu boo demee doo ranger chaise. j'étais la le processus quand on te dit le processus mooy fépp fu xeex am boo xam ne dañu ne. c'est mhm. waa Kaolack ñoo jóg wala waa maatam ñoo jóg ne dañuy xeex pour que abla bu nekk candidat lépp lu fa xew ci processus bi la bokk. et au total waaw da nga bàyyi ñu terminer en tout cas il y a ce qu'on appelle des des Francky, des actes terminer maanaam yooyu yëpp am ils sont détachables voilà. d'accord ils sont détachables maanaam si yéen li li ngeen wax. on a tout compris c'est détachable. on a tout compris maintenant Francky laissez-moi ah, le soin de terminer ma question s'il vous plaît. d'accord c'est bon c'est bon monsieur Thioune li ma fi évoqué sànq quatorze morts ci processus euh, électoral bi ak nga xam ne dañoo bëggoon euh, dàq benn système bu bon bu fi nekkoon est-ce que maintenant c'est sain au niveau de l'APR ñuy brandir euh, question troisième mandat bu président Macky Sall est-ce que nekkul ça une insulte je, je te prends au, je quatorze personnes ñoo dee. Mhm. ci régime Ablaye Wade pour jëlee fi système bu baaxul. Mhm. yow yaa ko xam je l'ai pas dit. et dafa juuma. Euh, système bu baaxul laisse-moi terminer laisse-moi terminer non non système bu baaxul. je pense question que entre Macky Sall entre ce système là et le système qui existe là. c'est bon je pense d'accord c'est bon on a tout compris allez-y. <laughs> très bien li nga wax ni déglu nañ kon lu taxaw sénégalais doon xeex c'était très légitime mooy Wade. ne pouvait pas se présenter mooy Wade moo jël armée sénégalaise Wade moo jël la police sénégalaise utiliser ko contre des sénégalais. mais est-ce que loolu. pardon maa ngi ñëw schéma a war a ñëw la police était police républicaine. man je ne fais farul police Ablaye Wade. man mësul far yow bu police Wade farul fenn 2012. ah il avait la possibilité bu nekk doon démocrate mu utiliser ces forces là. fexe ba li mu bëgg waa mu am comme Macky ni mu koy defee. Franck tu peux nous laisser continuer s'il vous plaît. non c'est un démocrate. lui c'est bon on a tout compris. c'est un démocrate tu peux laisser comprendre une chose. il faut répondre dans ce pays là dans ce pays là. Mhm. l'indiscipline l'insolence. Ah, attendez et la violence. mayewu fi ah, dara attendez il faut que mu yaa ngi wax ak man indiscipline insolence ma delloo ko mooy waa ñoom waa waa maire yi ils ont traité de tous les noms Moustapha Diakhaté boo amee kon da nga demal nga yar waa mère ba a tout compris ñu traité fils de pute. Francky di ko traité de quoi que ce soit. je pense que bu yaru di am ñooñu mu ne ñun école libérale la ñu am. Francky ñun dañuy yar. Franck, c'est bon. vous pouvez me laisser dérouler ah, mon émission maintenant. Allez, s'il vous plaît. Merci. Euh, euh, euh, malheureusement je n'hésite xam nga bu la bu la défier. Xam nga pardon, xam que Non, mais ngay animer sa émission. Non, attends, booy animer sa émission. Booy animer sa émission, ngay dem mu ne la bu waxaatee je n'hésiterai pas à me couper ko. mais ça montre qu'il est indiscipliné. d'accord il est gravement indiscipliné ce gars. Euh, mais mais internaute bi euh, ñuy seetaan ils vont euh, apprécier. je vais répondre à ta question. vous êtes en train de m'insulter tu es très indiscipliné. monsieur Thioune vous êtes en train de m'insulter. man sama indiscipline xamoo si dara. da nga kaa wane. ñi indiscipliné xam nañ leen les gens qui insultent des gens sur xam nga réseaux sociaux. je pense que ce sont ceux-là qui sont indisciplinés. je ne parle pas des man mosuma dégg ma manqué de respect qui te parle dañuy discuter. tu as manqué non seulement tu as manqué de respect. à ah, l'animatrice ah, ah, tu as manqué de respect aux internautes qui sont en train de nous regarder tout le monde le connaît tu es indiscipliné tout le monde le connaît et tu as intérêt. tu as intérêt nga yar sa bopp. mag mag warul ñëkk a. fu may terminer mooy. foofu laa lay wax mooy président Macky Sall xam nga la ñuy xaar. mag warul ñëkk a saaga xale. fu président Macky Sall fu ngeen koy xaaree. xam nga bul def ngisaane xam nga ngisaane mooy lan gisaane mooy nga ne est-ce que malgré loolu yëpp xewoon fi est-ce que war nañoo bàyyi loolu amal xam nga loolu kan lañ ko war a wax jour bi président makisal Sall def déclaration solennelle jàkkaarloog sénégalais xool leen droit dans les yeux na leen damay représenter. non non mais xam nga lan laa lay laaj. est-ce que tey jotul Macky Sall comme nu mu euh, euh, puniré ñenn ñu loon wax ci euh, wàllum mënul am troisième mandat ñu gis lu fu mu jaar ak ñoom. Hmm. est-ce que tey jotul mu mettre à ce débat au niveau de son parti. ok pour le respect au niveau de son parti c'est notre cuisine interne. Hmm. ça ne concerne pas. tous c'est notre cuisine interne ah li feeñ. non non lu feeñ ak lu xew suñu biir parti c'est différent je suis désolée monsieur Toune parce que carrément wàllum troisième mandat bu président maire Macky Sall ce n'est pas votre cuisine interne parce que ça concerne tout le. mais au sein de l'opposition. non non non ñii da di nee na am na ñoo xam ne nee nañ mën na présenté wu. au sein même de l'opposition. D'accord. Donc c'est le débat juridique qui est de nature contradictoire. D'accord. Donc donc on avance, on avance euh, Il faut ñu wax aussi développement. On a un bilan à présenter. Amul lu war a wax Sénégalais. Vous n'avez aucun bilan. Le bilan que vous avez mooy lan bilan jël xaalis ci réew mi yóbbu ko foo xam ne waru fa dem. D'accord, c'est bon.